da xam ne après c'est quelqu'un boo xamante ne il est foncièrement sincère dans ce qu'il fait. Mhm. il est foncièrement généreux dans ce qu'il mais koo xamante ne la objectif yi mu am moo ko gënal lépp moo tax dama jàpp ne chance pour Sénégal ñu am quelque comme de sa de de sa trempe chance aussi pour Sénégal ñu am quelqu'un de la trempe de Bassirou parce que euh, Diomaye on a travaillé ensemble. mais méthodisme méthode méthode bi mag euh, Diomaye méthodique. c'est mhm. nga gis ko. beneen bi c'est quelqu'un qui ne s'affole pas. Diomaye il toujours calme serein il toujours zen. et boo xamante ne il sait travailler. il sait faire travailler les autres. parce que problème bi ñu am ak Macky Sall après 2019 mooy après dafa dafa ne man rek maa fi nekk je supprime le poste de premier ministre man maa fi ne ba presque da ngay da ngay naan dem na sax ba euh, euh, euh, ñu toog benn waaye ne waa mais bu fi Macky Sall nekkee jógee kan mooy nekk président comme si avant Macky Sall y avait pas des présidents xam loolu boo demee ba toll foofu mooy ne en terme de management am na loo loo raté. maintenant li nguuru Macky Sall di dabaatal nii. Mhm. parce que Macky mu ngi dab dabaatal. am na ay ay mbir yu muy teg yéex na tellement que du ñu gis porte bi mais pour man. Mhm. président Macky Sall dafa dem au fond de sa pensée. le fond de sa pensée mooy lan. Mhm. le vingt cinq bii élection dafa war a le vingt quatre bii. élection dafa war a am gis grand bi ñi ko dugal ci report élection bëgguñu ko ñi ngi taxaw si noppam nekk reporté élection. Mhm. ñooñu bëgguñu Macky Sall buñ ko bëggoon dinañ xam ne duñ ko dugal ci lii parce que lépp lu mu fi mës def naax saay na negeek report élection bi ca Sénégal dañ ko ko wan donc na taxaw. temm ci élection yi am de manière régulière na continuer libérer tous ces jeunes là yi nga xamante ne ñu ngi encore dans les prisons parce qu'ils en restent beaucoup ñu ñun Tëngéej on a au moins une dizaine ou une quinzaine de jeunes yu nekk dans les prisons ba tey et ñoo xamante ne pour des pour des pour rien du tout quoi. pour hmm. des questions politiques ñu jàpp nit pour une manifestation politique Sénégal fii ñoom séeréer les gestionnaires xam nañ ne ce qui s'est passé ici en xew fi Sénégal en en en deux mille deux mille un ou deux mille vingt deux ce qui s' est passé en quatre vingt treize xew fi en Sénégal mhm. li fi xew. c' était pas violence bi moo si moo moo moo ci gënoon fës li ci xaw mooy mobilisation une grande partie de la population sénégalaise pour un homme politique. et cet homme politique là dafa am fu mu jaar ak ñoom woon leen ko. d' accord voilà. Euh, allez-y allez waaw waaw voilà maintenant euh, ndax nguuru Macky Sall réussir na réussirul ndaxte yàlla noonu la bindee àdduna. Mhm. te àdduna ay dynamique la boo ko xamee nag da ngay noppalu boo nekkee si dynamique de fin. Mhm. da ngay fexe nga rafetal sa gémm sa sa sa demin Macky Sall bi muy dugg bi muy dugg au pouvoir euh, dafa dugg au pouvoir c'est duggin bu rafet. attention mais Macky Sall bëggul mu rafet les gens su su su dañuy fàtte Macky Sall dañuy fàtte ne le Macky Sall de 2008 wala Macky Sall sax de 2007 qui était directeur de campagne de de Abdoulaye Wade bu ndoxatal ko fi diggante 2007 2008 assemblée mu commencé di dugg ci dëkk bi di wax ak nit ñi. Mm-hmm. man bokkoon naa si benn association en 2012. Mm-hmm. association bi doon implanté wu au niveau national. mais foo dem toog waa kër gi waa dëkk bi foo dem dëkk boo dem si àll bi ak mu sori sori dañ na laan fii nga toogoon nii Macky Sall toogoon na fi. Mhm. bi mu fi ñëwee wax ju rafet la fi wax suñu ndox mii mu naqare mii la naan. nga xam ne comme li sànq Cheikh Ousmane doon wax ne yaakaar bi sénégalais am si Ousmane Sonko benn instant joxoon nañ ko Macky Sall. Mhm. Macky Sall dafa toog deux mille deux mille deux mille deux mille douze. moi je pense que. Euh, lii rey Macky Sall c'est la passation de service wala euh, la conférence de presse au Radisson. d'accord grand bi day day day day wax bu bëri si ay symbole mhm. le Macky Sall di jàmmalaay. bi déplacé wu Radisson. Mhm. il a laissé le peuple à jàmmalaay. embourgeoisé wu Radisson. d'accord moo tax mu fàttali ko faloon te loolu nag mooy défi bi ñu am ñun défi bi ñu am mooy nañu gagné. mais bu ñu fàtte yaakaar bi ñu tal. d'accord parce que koo ko fàtte rek yàlla woon la ko. d'accord d'accord Cheikh Ousmane yow da nga da nga jàpp ni parce que tey euh, Ousmane Sonko en tout cas euh, gis nga fi mu fi mu mujjee ndax da nga jàpp ni tey président Macky Sall ak ñi mu àndal ñoom ñoo ko def en cas li mu li mu li mu doon tey jii nii. bon je dirais pas ñoo ko def li mu doon joué nañ ci. joué nañ ci. li tax ñu joué ci soo koy méta comme benn métaphore da ngay wax ne or. safara bokk na ci li koy taaral. Mhm. waaye safara deful or or. Mhm. Mhm. maanaam wurus doon na wurus. laata muy jaar ci safara. ay safara bokk na ci li koy taaral koy taaral. bokk na ci li tax muy briller. loolu la bûcher di wax mbartal. mooy bu ci jaaree tàq-tàq boobu muy am pourtant terewul or or la. brut bi sax ay gën a cher léeg-léeg waaye bu jaaree ci safara si lañ koy gën a bëgg donc épreuve yi. persécution bi buntu xataan bi tax na kumpa bëri nañu topp tey Ousmane Sonko. Mm-hmm. gëm ko adhère ci projet am kumpa dem découvrir ki ñuy persécuté kan la moo tax ñu dem xam ko Ousmane Sonko Sonko mm-hmm. ñu dem mais la gaa laa ma dem xool parce que dañ ko jël en fait da wax ne depuis benn jamono nguur gi dañ jël seen temps yëpp ak si projecteurs yi braqué ko ci Sonko. Mm-hmm. li sénégalais xamul woon ci ay qualité ñoom ñu leen koy feeñal à travers attaque ak tentative de diabolisation yi parce que boo xëyee bis gis ñu koy attaqué sur sa vie privée tu te di mais kii comme tous les hommes politiques pourquoi gestion duñ ko tudd. nga dem hmm. gëstu gestion xool ne génn na dévier leen ne leen j'ai fait 15 ans aux impôts et domaines ku ma xamal lii ak léeg lii dénoncé yóbbu leen ma of nag ainsi de suite. Hmm. nga ne ah kon waa ji kon mucc na ci loolu. ñu attaqué ko fii nga gëstuwaat ñoom ñoo éclairé. beaucoup dee sénégalais ci ñu dem xam ji Sonko te nag sénégalais peuple la boo xam ne buggul injustice te Ousmane bi ñu ko tegee injustice peuple bi porté ko contrairement ak homme politique yu bari yu ko pressé. dañ ko sotle quoi dañ ko sotle Idrissa Seck tolloon na fii. Mhm. mais après lu mu fay sénégalais nen la may doj bu ma tojee bu ma dalee ci kawam toj bu dalee sama kaw toj dellu naa sama kër baay. l'audience de waaw. <laughs> li Sénégalais été xoolal. boo xoolee divorce ci Sénégalais ak les hommes politiques ci idée la commencé. mu ngi ñu ngi juboo waat ak ak les hommes politiques ci Sonko. boo xoolee intervalle boobu homme politique yi fi am traversé du désert yëpp Sénégalais yi soutenir wuñ leen y compris le président Macky boo xoolee soutien bi demeewul woon. da ngay jàpp non boobu dañ. gedd non parce que Sénégalais mosuñu woon gëm ni idi bi daj këram fajar. su fekkee yow suivre nga Idi bi ñu koy arrêté fajar dig encercler këram daj ko les paroles les déclaration de Idi. Mm-hmm. ma famille exilée loolu ni mu doon dund duggee ci xolu sénégalais. Mm-hmm. ak jooyam waaw jooyam yi est xam nga am na capital de non sympathie bu sénégalais am ci Karim Wade loolu ko jur xam nga loolu. Mm-hmm. parce dañ jàppoon il était. maam kuusu. jafe-jafe yi Idi di dund. à l'époque man je me rappelle da nga daan jàngi fajar di déglu Sud FM. ñu naan digg ngi buntu kër Idi jàpp nañ ko yóbbu nañ ko Idi ak déclaration bi mais loolu. Mhm. dafa am lu mu def ci xelu Sénégalais yi. mais rek xëy bis effacé table rase comme si de rien n'était. comme dara mosul xew. mieux il di dit que de duble woon entre mën a góor gi. mais mhm. Sénégalais yi divorcé avec les hommes politiques. Mhm. xoolal 2007. ba 2012. ah. ba tuuti bi ay Ousmane yii di ñëw. pour nga gis leader politique bu askan bi porté. Mhm. c'est très rare. Mhm. Mhm. c'est très rare. dinañ la mais porté la. porté c'est très rare. bu dee am na. parce que dafa amoon benn moment de divorce divorce boobu nag Ousmane da leen réconcilier avec les hommes politiques mooy langage de vérité utul politiquement correct utul langage diplomatique yi ñuy wax non daf lay wax li am loolu la sénégalais adopté ci moom. liñ dal ci kawam bokk na ci li taaral parce que parcours bi bu demeewul ni woon nii yëpp ay nit profité ci yow bàyyi la ñuy joué sa kaw ñu naan da nga naïf ñii ne yooyu yëpp moo waral tey victoire bi rafet Ousmane bu demoon dialogué bu dem nangoon compromis tey du rafetee nii. Mm-hmm. tànn na benn chemin. metti woon na nag parce que man ma xëy faral di wax jour bi ñuy jàpp Ousmane Sonko. Mm-hmm. di dissoudre Pastef. Mm-hmm. di wàcce drapeau bi. lu bu yàqin rek a fa desoon. Mm-hmm. mais lépp jeexoon. Mm-hmm. amul kenn ku xamoon après lu ci topp juróom yàqin nag maam ku ku ku konte gëm yàqin na la fa téye mooy la fois mm-hmm. mais du leneen. maanaam euh, c'est boobu journée bu diis journée bu sombre la. boo xamee yenn responsable yi ngay wax ak ñoom da ngay xam ni ñii désorienté nañ xatuñ fu ñu jëm boobu c'était pas évident. mais ils ont enduré ils ont enduré ah boo xoolee beaucoup de choses yoo gëj a dégg de 1960 dafa ñëwaat ci affaire Ousmane Sonko. Mm-hmm. exilé politique. Mm-hmm. Mm-hmm. loolu mais ay PA yi la fi gëjoon. dafa ñëwaat. loolu les gens n'en gis nga histoire bi dañ koy bindaat en fait. beaucoup de choses dafa am mais ak coow li doo am temps wu am benn recul am ci benn lecture. mais loolu bëreetul dëkk yi nga koy dégg loolu gëj na am Sénégal depuis les mm. années soixante mm. exilé politique crise booy di dee ci océan bi mm. ñii di dem uti richesse mais ñii di daw di uti sécurité bien sûr beaucoup sax sénégalais yi di tëj seeni magasin di ko liquider man xam naa ay mbokk yu ma bokkal Saloum ñu jaay seeni magasin à de cinq quatre millions daw ni Nicaragua pour daw mais mais moment yooyu yëpp tey jii ne lan nga jàpp ni moom moo euh, dimbali tey jii Pastef ba ñu surmonter ko en fait. bon le peuple. askan bi askan bi parce que nag loo ci munti dégg askan bi wéetuñ benn yoon ci seen combat askan bi yàgg na nekk seen loolu nekk na benn support bu leen dimbali parce que booy xool les sénégalais. mooy waxtaan ak ñoom ci Sonko da ngay sentir am sentiment de redevabilité envers Sonko mooy waa ji il s'est sacrifié pour moom. ñun na lu ñu warloo ak moom. ñun am na lu ñu warloo ak moom parce que waxam boobu muy wax naan man lu ma dal rek bëgg réew mi ma ko teg. Hmm. boobu daf profond. Hmm. dafa diis. boobu wax bu profond la. te da xam ne boobu xol la waxee. boobu Ousmane était à bout de ndeysaan boobu nag sonn na quoi boobu sonn hmm. boobu mënatul. te mi ngi doon mu doon libéré wu metti na hmm. xam nga setaan bi bëri na ñu bëri waxuñ. Hmm. boobu Ousmane Etat bu du suuf période boobu boo koy xool bu génnee sax da nga xam ndeysaan waa ji sonn. mun leen man lu ma dal rek bëgg réew mi ma ko teg mais wax boobu pour yow dafa dugg ci ay nopp ñu tëx déedéet yi dañoo dégg déglu te xam ni mënoon na dem tànni beneen version sëriñ amoon na beneen alternative de. bien sûr. mais defu ko. metti woon na Ousmane période bi ñu koy jàpp pamte pamte maanaam Ousmane dem na yow bu ñemewul génn dem procès. Mhm. mooy procès bi bañu ma dem mais sama sécurité moo nekk en jeu. foofu la Ousmane sonkoo tolloon en fait. Mhm. bañu maa dem sama avocat sax kenn sama avocat nee na ma kaay fanaan sama appartement ville ma ne ko bu dee loolu la jaru ko. parce que mhm. boobu Ousmane dem na ba vie am nekk en jeu quoi. su génnee amul benn yoon Ousmane Sonko dana génn. te du dund benn jafe-jafe gu metti ci tali bi nga war a xalaat kooku yaayam nga xam ni beneen monde la nekk par rapport ak ñun toog di dégg doomam mu ngi dund situation bi ainsi de suite. ak ay doomam ay doomam pression bi ngiy dund. l' aspect aspect boobu ñu bëri dañ koy fàtte. Ah, nga xam ne Ousmane benn soxnaam mi ngi lay wax na la. doom ji dafa dem ba ne ko xaw ma jeudi xaw ma ban jour bëgg ko parce que ci la ñuy jël si papa. Mm-hmm. si cause boobu ngay dund tey la ñuy jël sa pap est boobu. c'est clair. yeewu gis ay gars encagoulé wër sa kër tey la ñuy jël sa pap doom affection bi moom doom ak baay. Mhm. impact la quoi impact boobu. loolu nag moo moom la Ousmane loolu yëpp Ousmane Sonko enduré moom la semé moom la coalition Diomaye bi di récolté. Mhm. moo tax ngay gis bu ñu rombee benn mhm. koñ sénégalais taal seen oto def ci essence caravanal leen. bu ñu duggee benn gox nit yomb na leen dooli naa ko ci essence. jox mhm. naa leen oto jox naa leen matériel jox naa leen jox naa leen. Mhm. parce que sénégalais yi ñoo ko adopté seen bopp duul looy dem jaayi sénégalais yi. Mhm. donc il a semé tey ils sont en train de récolter. donc loolu c'est inévitable léegi nag li ci des mooy comme lu Sidi di wax. Hmm. bu ñu ko jotee après fan lañ jëm. fan lañ nan lañ koy gérer ak fu ñu koy yóbbu. d'accord euh, loolu moom mooy li ci lañ war a jëm nii ci kanam en tout cas parce que si euh, si. Hmm. Euh, Ousmane Sonko mook Diomaye instant bii nii léegi ñu génn ñu war a battre campagne. Hmm. tey bu ñu demoon tey ji ba nguur gi Diomaye Faye hérité ko en tout cas. est-ce que mënuñu am président boo xam ne mënuñu njort ni danañ am président boo xam dañ koy course parce que tey euh, Diomaye en tout cas booyu booyu Ousmane Sonko la woon. non man yaakaar yow moo ko euh, noonu rek euh, balaa maa ñëw sa question bi directeur ah, ma rebondir. Mm-hmm. li li Cheikh Ousmane di wax quoi tellement Cheikh Ousmane mu parle. Mm-hmm. xam nga Cheikh Ousmane mi ngi lay expliquer ni Sonko dafa mos a wax benn.